bilib exploitation nag war a dugal loxoom bu baax ci rek suqali koomu Sénégal ci atum 2023 te it bu ñu sukkandikoo yi war na rek gàddu téeméer boo jël fukk yi tomb benn loolee nag nekkoon rek ci atum 2022 ñeent tomb juróom-ñett exploitation pétrole ak gaz boobee rek xaarandi 900 milliards ci ay recettes te it nag boobule exploitation la ca tukkee ñu war ko rek jot balaa projet yi donc euh, bu GTA ñu ngi si quatre-vingt-dix pour cent donc tuuti rek moo si des bateau bi nga xamante ne mooy def traitement gaz bi ñu koy woowee FPSO jigéen na fële ñuy woowee Singapour euh, pour ñëw si euh, frontière u Sénégal ak Mauritanie pour daal ñu mun a am gaz bi ak pétrole bi incha allah fin d' année mille vingt trois début deux mille vingt quatre mu gën a yàgg. secteur extractif bu Sénégal nag ña cay profité di ñu néew lool rawatina nag ñi nga xamante ni ñoo ko gën a soxla. ñi nga xam ne sax ñoo dëkk ci yenn gox yañ koy defee daanaka rek duñu ca gis seen bopp. mais est-ce que ñi nga xam ne ñoo dëkk ci bërëb yi nga xam ne am na pétrole ñii am na mine ñii am na gaz est-ce que dinañ ko profitoo est-ce que population bi dina ci gis PAM loolu waxtaan bu yaatu la laaj loolu buñ ko defee ba pare ñu xool ñiy dëkk ci gox-goxaat yi naka lañ ciy profitoo. ngir rek gën a saytu la nekk ca loi numéro 2019 04 nga xam ne rek day sàkku kenn ku nekk gis sa bopp ci boobu la exploitation transparence nag war caa jiitu. forum économique bi la ko tax a jóg mooy ñu mën a xool yan la ñuy def ngir mën a weccante xalaat. bu ko defee itamit rekk ak tëral yi nga xam ne daal mooy tax ñu indi leeral ci li nga xam ne daal mooy lay ruusee moo tukkee ci suuf si. constitution bu Sénégal nag ci article vingt six am di rek xam ne ni bépp comme bu mën a nekk ci réew mi waa réew mi ñu ko moom tey ci ñoo ci war a jariñu lay tukkee ci exploitation pétrole ak gaz boobee nag ñëpp rek war caa seen bopp rawatina nag la ñu tuddee politique de contenu local loolee lépp nag ñu koy amal rek ci ab dialogue boo xam ne ñëpp cay bokk.